kii ñu ngi leen di nuyu ñu ngi toog ak champion bi nga xam ni kenn du ko présenté ci làmb muy Gris 2 nekk ndaanaan doon làmb Fass am ci moom yaakaar rawatina tund làmb gépp tey ñu ñëw fekk la fii ci ngénte ki nga xamante ne mooy Maam Cheikh ginnaaw loolu dañ lay nuyu bàyyi la nga nuyu mbokk internet Gris foo waaw maa ngi fi rek ñu ngi nuyu téléspectateur wasaare yëpp di la nuyu waaw di nuyu monde entier mm-hmm. waaw maa ngi sant bu baax alhamdulilah sa combat ak ba léegi gisuñu Gris 2. lamb moo la fi indi wala nu mu demee noonu. jotaayu mbërul moom lamb rek la ñuy waxtaanee ndax yaakaar naa bu ñu nee wasaane la. ñu ngi waaj daal di xaar. waaw ñu ngi waaj di xaar. waaw nga des fois ñu wax ma ay adversaire mais ñun toujours moom yilifuñu suñu bopp quoi suñu bopp moom bàyyi nañ kook suñu ay kilifa rek. adversaire yi ñooy teggi wala yow yaa jubóowul ak ñoom wala yaa bëggul su. Ah, mën na am tamit ñu xeeb ma rek. nit bu nalaa xet ci lam ah bañu mën a ne mbër yi léegi lu nekk am mais daa sant yàlla daal ñun daal mais fii yooyu daf ñu fi indiwul waxal si man xam nga ni làmb laay waxtaan ak Gris 2 parce que Gris 2 askanu làmb dañ laa namm mais Gris duñ gis muy def ay sorti duñu ko gis mu génn génn yu bari Gris daal mu ngi ci ruqam toog concentré wu ci carrière lan la loolu ruq waaw mais làmb xam nga noonu la làmb moom sa waay rek lañ ko def pour yëngal wala pour def ay comédie pour am coow wala dara mais làmb ñun bi ñu option bi ñu jël mooy ci biir géew la ñuy wane li ñuy def te ñun ba ñu commencé làmb ba léegi si biir géew ñu ngi wane suñuy preuve xam nga moo daal li si des ñun dañu préféré rek toog suñu ruq di xaar heure bu ñu làmb soxlaa ñu ñëw participer waa ah, mais pas di génn génn yu bëri wala di def ay wala di wax ay waxu dof wala di wax nit ñi lu ñaaw wala dara pour bëre non non dañuy toog rek xaar ku ñu làmb boole ñu bëre waaw. bu Gris doo daan bëre avant ngay bëre di takk ngem koo rombaan ci làmb daan la demal bëre ji demal bëre ji ñooñu daan la ko wax say nawle mbër bi nga duggee ci làmb ji di bëre di def ay preuve tàllal nañ la loxo ne la kaa ñu bëre. non man moom gars yi man moom en général doo gis mbër yu bëree bëri naan jox leen ma Gris 2 wala dara loolu moom tàmmoo ko tàmm ko quoi ci làmb moo tax di toog di gëj a bëre nii mën naa wax ne tàmm naa ko depuis ba ma duggee ci làmb ba léegi sama combat mosul yomb pour ma am adversaire dafa yàgg di jafe mais loolu du dara ci ñun en tout cas daal ñun daal ñu ngi sant yàlla bëre sant yàlla ñàkk bëre sant yàlla waaw. boo jógee ci Reug waaw waaw Abdou Diouf ci ndam te tamit kii nii sama tey bu ñu bëreewul kii moo tax dañuy du ñu bëre mais dañuy nekk si jàmm mais Canada la nekk mais lu nekk daal la ñuy defal waaw moom moo tax man bu ma bëreewul du ma ko yëg waaw ay mbokam nañ ko xam bu dee bu dee du jàppale ay mbokam ay mbokam nañ xam ne mi ngi jàppale ay jàmbur <laughs> actuellement ni say adversaire ba ma doon liwal trois personnes ñan nga jàpp ni ay say adversaire potentiel la làmb boole. adversaire moom moo fi indiwul aw ma adversaire bàyyi ma saa ay. parce que barki gis nañ nga euh, ku mel ni Toubacouta bëree daan euh, nga nga nga ne ko laajal xaw ma ba xam yaa ko laaj loo Fils de Balla wala déet mais gis naa Fils de Balla def sorti mais moom yow la gën a bëgg ci mbëri yow la. Ah, loolu sax dégg naa ñu bëri di ma ko wax naan ma waa ji daf la doon xas daf la xas xaw xaw ma lan ak gis nga man làmb bu dee wàllum làmb xam nga lan moo ñu boole ñun mbëri mooy affaire doole affaire fit affaire gàllaaj affaire mën bëre ñeent yooyu bu génne laneen lu nit di wax rek yaa ngi wax loo xamante ne bokkul ci làmb parce que ay xaste yooyu ñu ngi ko séntu si ay jigéen wala ci ay góor jigéen ngeen baal ma sax si li tax ma wax ko mais xam nga yu mel noonu bu ko nit di wax ndox des fois da ngay gis ñoo xamante ne réewande mooy tax ñuy def li ñuy def te fii gars yëpp ku si nekk am nga loo làmboo kenn gënu fee réew kenn mais dafa am nit ñoo xamante ne dafa am lu ñuy jomm am nit ñoo xamante ne amuñu dara lu ñuy jom mais man ñu bëri signalé nañ ma ko naan ma xoolal li la kii wax li la kii wax li la kii wax mais man jàppewu ma ko dara. mais bu am nga lu la métti. non aw ma lu ma métti parce que nit ku nekk rek ki xas balaa nga koy tontu da ngay xool ndax yow bëgg nga mel ni moom bu dee yow bëggoo mel ni moom rek xasam waru la déranger. te xas kenn séentu ko ci góor rawatina ci sportif moo tax yooyu du ma déranger ndax loolu ma def am naa ci droit sama rakk ma ne ko ndëkkal kii mi ngi mel ni Balla Gaye ne ko ndëkkal Gris 2 est-ce que man damay xas Balla Gaye mais loolu am naa ci droit mais lu ne wax na ko mais garaawul waaw. mais bu ñu la boole woon ak moom du moom nee na moom bëgg naa bëri xaw ma nag ba xam. man mu am problème mu adversaire man raw ma kenn ci làmb kenn raw ma tamit ku mu bëreel war naa bëri ak moom yooyu du problème. mais nañu nite jéem a yaru yarulu xam ne reewantu amul sens fii kenn gënu fee réew kenn téye sa micro micro bii nga ma dëkk bu ma neexoon mbër bu ma neex ci làmb ma xas ko te dara duma ci fekk mais lu tax ma koy def loolu yëfu dof la du yëfu réewane du yëfu am fit fit ci géew lañ koy wane ñu am fit ñëpp xam nañ leen tapet yi ñëpp xam nañ leen déggoo ma man xaw ma kenn kuy tapet xaw ma ko am fit mais dama la wax d'une manière générale nañu nite nekk nit ñu respectante mais toog sa kër ñu dégg la micro nga ne danga ngaa réew lu ne nga wax ko nit yaakaar na yaa si nekk loolu du yëfu góor dégg loolu du yëfu góor te man <laughs> te li ñuy wax rek mbaam bu la wéqee nga wéq ko yéen ñaara yam mais man yaakaar naa <laughs> am na loo xam bu ma ko waxoon moom dina yaru quoi mais yooyu yëpp garaawul yàlla baax na. mais jotul bu fekkee mbër day day daa bëgg moroomu mbërëm. wala nga yónni comme tay ni nga def na sa rakk dëkkal Fils de Balla est-ce mbër yi ñu xoolaat seen taxawaay parce que barki démb gis naa ay mbër yoo xamante ne dañoo taxaw naan ko milieu bi may fréquenté doo fa fréquenté ndax amoo fit dégg mbër moo xamante ne nee na ko maa la gën a nekk criminel maa la gën a lu ma dugg jel duggoo ko est-ce que mbër war na di communique communication boobu mbër war na ko def. waaw gis nga environnement dafa am solo environnement dafa am solo gis nga man ay yu bëri dañuy wax kii dafa yaru kii daara la jugee wala daara ñun ñoo gën a dof ñëpp mais ku su ne nga am ay waajur man bu may génn sama kër muy giri muy man di signature sama yaay xam nga la boo fa xasee nit yàlla nañ la daan xam nga loolu ci sa waajur lay juge moo tax doomu aadama bu ne fa nga juge la fa am loolu ngay yóbbu ci mbedd mi koo gis fii muy reewantu xamal na fa mu jugee la ko jëlee ñun yàlla du yàgg ci àdduna yàlla mën nañoo teg nattu yëpp mën nañoo def nit ku bon mën nañoo def yëpp mais ba àdduna di tukki duñu reew du ñu reew du ñu fuuñ mais ñoom loolu la ñu xam moo tax loolu la ñuy def man loolu du ma fii kenn mënu fee yar kenn ñun ñëpp ay magum jëmm lañ ku ne ni nga mel noonu ngay mel ba faw mais nañ bàyyi dof dof lu bi ñun nitee ñu compétir wane ne géew moo ñu boole bàyyi waxu dof yi bàyyi yëfu dof yi loolu rek laa am lu may wax Zarko wala Baye Mandione. nekk si yow bàyyi ma waaye. nekk si tamit. waaw mais ñoom ñaar ku ci am pare nga pour jeex na mais jeex na. ñëwuma samp ma na. parce que lamb dañ la namm giri de lamb dañu nekkee du am. moog Franc duñ bëre moo góor du am man ma fi nekkee combat du am du am. wane yàlla waxul dëgg. barki yàlla du am. ma fi nekkee combat du am. Eh, waxul dëgg. du am de. man lay financé financé wul ñooñu te moog ñooñu ñoo dëgg. boo dëkk de mais du leen joxal dërëm. mu fi nekkee man xaar chaque mois bàyyi ñooñu. kii Fass la ne du am laa la wax kii fépp la kii Fass la nekk ak parcelle comme maam du am. comme maam du am laa. ah bàyyi ko foofu bu ma ñëwee Papa Sow Siteu Papa Sow Siteu bu ma ñëwee samp nañ dina xam ne man yëpp laay ba. maa ngi koy jaajëfal ba dégg nga ndax doon yàlla nag waaye bu jéggi at bii. barki Rasulullah billahi combat bi du am benn du ci am benn non day day xam ndek ba pare Tafa man lay àndal ñëw saat waaw ba pare Tafa man lay àndal ñëw. dama jege. kii tamit di gën a yokk beneen problème a ngi gars yi dañ ñaanal ñoom ñëpp ku ci nekk li ngay wut ci làmb yàlla may la ko parce que ay nit lañ ñoo xamante ne dañoo sonn ci làmb mu kii ak Franc góor ak ñoom ñëpp mais fii ak maa ngi dund combat yi du am incha allah mukk. du yàq làmb. du yàq dara. bëri na bëri na bëri nañ ay adversaire non du loolu mais man. waaw ah, léegi moom kan la war a bëri. comme yow wutal teggi nga ay adversaire am kan la. kii kii ñu war a bëreel bëri na. ah ñoom guy gi la moo tax mënul bëree guy gi. mun a bëree guy gi ñoom ñaar combat la. rëgg leen boole. waaw ni effectivement. rëgg daan guy gi daan effectivement ñoom ñaar war a mën bëree kii dafa war a mën a bëree ku nekk. foolaa rek kii day sóob yooyu yëpp day ñooñu ñëpp dañuy bëree. barke Rasulaa ñu ñëpp dañuy bëree kii day sóob rek xamul sax lu xew Canada la nekk. di liggéey ay bagage ak yu kenn xamul mais ñun ñëpp dañuy foo xaalis après mu jeex ñu toogaat nii am na jaajëfal bu baax ngir baax lay jaajëfal bu baax. doy na baax na waaw tàggoo sax nuyu ñëpp tàggoo. ñaa ñëpp na ñëpp am jàmm <laughs> sama rakk bi bëre bëri ki ginnaaw suba incha allah war daan te waxu. mais nga am problème ndax sa rakk bu dee day bëree ak sa xarit. comme problème dina am. comment sax xarit. giri de daal amul léeg-léeg ku daal bëgg la. déedéet combat bu am franc et sang yi waxul loolu man du ma fi nekk muy wax loolu. Franc instant yi kele non non non moom warul wax loolu bu combat wu amul instant yi Franc la ak soq xaw ma soqul soq. ñëpp moom mii tamaa damay bëreel moom billahi damay bëreel. wala yàlla du dëgg. amul Sénégal kon ku ma dul bëreel. cette fois du a ne ñu amul nu muy amee. Papa kilifa damay bëreel waa ki ki kan moo ko yar léegi waxal ki kan moo ko yar. kan moo ko yar. ah papa ah kon jë. sama boobu alxuraan bi la. Ah. mais beneen bi. papa sama patron ki ñaari côté la bokk. ah patron <laughs> mais la non xam nga gars yi ñoom ñëpp a yem quoi ay borom baax nañ xam nga. ñoom ñëpp ay xol yu nice nañ yor ay ay xarit nañ ay rakk nañ ñu baax nañ quoi. donc di leen ñaanal ñoom ñëpp seen carrière rek yàlla defal leen ci jàmm. ak Franc tamit combat bi mu jëm incha allah ginnaaw suba dimanche di ko si ñaanal euh, ndam lu kawe parce que nit la koo xamante ni am na yar ba pare day jox nit cër waa day jox nit lu moom ba pare day waxtaan ak gars yi déggoo naa ak gars yi ak loolu di ñaanal ñëpp daal waa parcelle Papa Sow Modou Lo yëpp ñoom góor moom mi Maodo di ñaanal gars yëpp yàlla dafa leen jàmm. combat moom fils de balle dañu ko jàppoon mu am blessure. actuellement yóbbu na guérison am jàpp nañ ko la quatorze août. est-ce que combat boobu am ngeen yaakaar ni Gora Sock pare na pour bëre Fils de Balla. non Gora pare na parce que man li fi romb ma ko juger parce que boobu nekkuma fi mais boobu ñu doon déggante quoi mënu ma dafa gaañu yooyu. mais démb gis naa ko muy entraîné wax dëgg yàlla mais li mu ko gis muy def démb. tane na de wallaahi. waaw tane na euh, góor a moom moo mun ay Fils de ah, moo ko mun waaye Fils de Balla ah Fils sa Balla moom kañ la kañ la ko nit commencé gis si làmb xam nga tamit nit dañuy fàtte li fi jot a xew. parce que léegi comme li ma wax rek làmb moo xew léegi ñëpp ay mbër nañ ba pare léegi gars yi lu leen neex dañuy génn wax ak seen communication taxaw di xas làmb mun nga bëreeg nit te doo ko xas doo ko def dara ba pare mbër yi comprendre ñoom li ñu nekk du lu ndaw. gis nga mbër yi ak ak ministre ak député yi yor ay ay ay passeport diplomate ñoo yam de presse book mbër bu ko am mooy mbëru Sénégalais yi. yaag ñooñu yéen a yem nga respecté sa bopp booy wax nga xam li ngay wax nga xam ne porteur de voix nga du la neex wax du fu la neex dem mbër da nga war a respecté sa bopp mais léegi da ngay déglu communication mbëri da ngay rus sax comme li ngeen doon wax sànq rek ay dinaa la rey ak fi may dem doo fa dem ak man ki ma gën a ragal keen mooy ku dugg jàkk nit loolu la war a bàkkoo bu dee julit nga moo demee julit di jàpp yaru am yar bu dee làmb nag arbitre bu soufflé nga nekk mbër bu jeexee jeex na mais mënoo topp ci yenn affaire di ci wax di wax ay wax yu ñaaw léegi xale yi lay déglu après dañuy topp ci loolu ñun kon amatu amatuñu ay repère léegi parce que nit ñi communication yi ñuy ñuy véhiculer kenn xamul lan la wax dëgg yàlla na gars yi xoolaat seen communication. parce que mbër yu mag yi du noonu la ñuy waxee boo leen di déglu ku ci wax wax ju tee ngay wax respecté ñëpp lamb du affaire de violence ak jaay fit. bu dee mbër nga sa copain am combat nga taxaw di jaay fit bàyyil boo amee combat nga jaay fa fit mais nga taxaw naan da nga fit. sa sa nit di bëre nga jaay fa fit teew boo amee combat yaa gën a tàppit ñëpp kon kañ yow yow ban fit nga am léegi nañ waxante dëgg ah mais nañ waxante dëgg